Euh, voilà ba tey rek ñuy wéy di xool euh, si ñi nga xamante ni moom mooy euh, ubbiteeg Masaalikul janaan tey tamit boo xoolee fii nga xamante ne moom mooy Masaalikul Jinaan maanaam sa xel dafay dem si li nga xamante ne rek moom mooy màggalu Touba xam ni Serigne Bamba moom moo xewleeti tey it mbamba moom moo ayeti soxna yi gis nga leen ñoom ku si nekk tey it yiw nga lépp rek ngir màggal li nga xamante ne ni rek moom mooy ubbiteel Masaalikul Jinaan soxna si maa ngi lay nuyu bu baax ba baax. lay fay bu baax wa sëñ bi. tur la. man maay soxna kontaan torop ci Masalikul Jinaan parce que ñu ñoo nekk HLM dañoo bàyyi suñu yitte yëpp ndax sëñ ba jaral nañu ko sëñ Touba kenn mënu koo fay parce que la nekk Touba moom la ñuy yenoon indi ñu ko ba dakaar kon moo tax cag ci ñuy toll naan jërëjëfe sëñ Touba di ñaanal sëñ mu yàgg fi lool di ñaanal euh, sëñ Mbacke yu fay tamit mu yàgg fi ndax lii lépp moom la ñun daal amuñu lu ñuy wax di ñaan suñu borom ñu boole ñu ci milliardaire Cheikhul Khadim yi ñun ñëpp rek ñuy am addee di ko fi joxe saay su ne jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba ayca euh, jërëjëfe sëriñ Touba day kàddu gu neex kàddu goo xamante ne nii kenn képp koo xamante ne ku nekk rek da nga euh, nekk si diine l'islam war nga sant sëriñ Touba combat bu baax a baax euh, soxna si maa ngi lay nuyu baax. maa ngi lay fay sëñ tur bi la. Adja Nogay Sarr. ayca Adja Nogay en tant que koo xamante ne a HLM la tey euh, nga nekk doomu HLM ñu jël li nga xamante ne ne moom mooy taaru Massalikul Jinaan ñu ñëw euh, teg ko fii si bërëb bi bërëb bi nga xamante ne nii ku ko tudd Colobane tamit da ngay tudd HLM ban mbégte nga si yëg. kontaan rek barke Rasulullaay suñu xol sedd na kontaan nañ Serigne Touba daal mënuñu koo fay yàlla nañu ko yàlla fayal. mbégte daal lañu am mbégte mbégte murit yëpp a bég murit yëpp a bég barke yonente bi ok ñu ngi lay fay sëñ bi. naka nga dundee li nga xamante ne moom mooy ouverture Massalikul Jinaan ak teeru bi nga xamante ne démb amaloon nañ ko Serigne Mountakha Cheikh Ahmadou Bamba. ah macha allah sëñ bi wax dëgg yàlla ñëpp bég nañ ñëpp kontaan nañ ñi ngi ñaan daal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér yàlla defal ñu ci jàmm ñun ñëpp ñu fekkee ko ay déwén yu baree baree bare ndax suñu xol sedd na guy macha allah macha allah lu toll ni jumaay Touba ñu ñëw andil ñu ko Ndakaaru wax dëgg yàlla suñu xol sedd na sedd na torop yàlla nañ sëñ Touba daal moom daal macha allah moom lu ñu bëgg a wax rek. ndeysaan xol bee sedd mais tey euh, su ma la doon laaj li nga xamante ne ni mooy démb ak tey euh, bi Serigne Mountakha ñëwee ñu teeru ko teeru bu am solo euh, tey lan moo la gën a marqué si diggante bi démb tey. li ma gën a marqué mooy sëñ Mountakha bi muy ñëw ci péage bi sëñ bi loolu wóor na Cheikhul Khadim bi ma koy xool dama doon jooy nga xam ne lu sëñ Bamba leneen amul lu dul sëñ rek zéro lay doon sëñ Bamba daal dañ koy ñaanal rek ndax moom moo ñu tànnal boppam Serigne Touba mënoo xëy xëy rek nekk murit Cheikhul Khadim moo lay tànnal boppam moom mooy xool ñi ko neex mu boole ci ñoom ñun nag dañ koy sant bu baax bi mu ñu jëlee boole ci njabootam amatuma lu wax lu daan naan rek jërëjëf Serigne tubaa loolu daal laay wax saay suma tool jërëjëf Serigne Touba ay ayca dañuy wëy rek daal di xool ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi naka lan wuyisee li nga xamante ne moom mooy ubbiteeg Masalikul Janaan ku nekk ak ni mu fi waaye tamit kenn ku si nekk ak la nga xamante ni loolu lay yëg si biir xolam euh, ma taxaw koo xamante ne nii ñu ngi koy wax euh, Serigne Cheikh euh, Bayax ñu dénk ko rek suñu micro xool moom tamit naka la dundee li nga xamante ne ni moom mooy ubbiteeg Masalikul Janaan ak premier jour bi nga xamante ne nii rek dañ ko jagleel ki nga xamante ne nii rek moom mooy Serigne Saliou Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Cheikh maa ngi lay ziar bu baax. waaw lay leeloo siyaar baax a baax di leen xamal ne bis bi moom eh, yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw di dekk ni ñi micro ngir ñu mën a wane seen mbégte wane googu yi ñu mën a wane seen mbégte te ngeen waral ko noo ngi ñaan ci barkeb Seydina Muhammad barke Sëñ Bàmba mi tax mu ñu daje fi yàlla bu seen dara nëbbooti ndax yéen kat yéen a waral kat li fi xew ñi teewut ci barab bi man koo gis kon nag. Euh, émission bii ngeen euh, kii mbi tudd maanaam wane ma ñu di ko wane ci YouTube mu ñëw ci fii Masalikul Jinaan mbaam Bamba nag dafa waxoon ne darajati taalu walay sa tam xafid wa man naha minal wara xaf di xufit sama daraja waxtu ne day gën di jëm kaw ba faw waaye bépp jaam bu jéem a sàkku sama suufe nag yow ñu detteel la mu dellu ne rafaanil quranu rafan xafada man saa woo taxadumi fan xafada alxuraan moo ma yëkkati ba yëkkati ba ca kaw ba ñëpp seen ma waaye ci la dekkeele ñi nga xam ne ni ma mel def leen a naqari mu dellu wax ne koo xamante yaa ngi léewaaytoo ak man ne la woon ne suñu borom yàlla ngay léewaaytool sëñ Tuubaa nag alalam mooy alal yàlla jumaay Masaalikul Jinaan ji maanaam mooy li nga xam ne néeg yàlla la léegi nag mu doon loo xam ne doomu aadama yi fi daje yëpp kenn ku ne boo lambee xol ba àjjana moo ca nekk. ñi fi daje ñëpp kenn koy boo lambee xol ba aljana ñoo ci nek kon liñ mëna wax moy képp ku fi ñëw rek sun borom yàlla jéggal na la ndax yoonent bi alayhi salaatu wasalaam mo wax ne ما من xawmin يجتمعون ويذكرون الله الا نادى مناد من السماء قد بدلنا سيئاتكم بلا bil امول amul جتاي boo xam ne yàlla tax ñu teew fa ñu teew fa di fa tudd yàlla amul me te amut am malaaka mu yàlla yebal mu jóge ca kaw ne leen eh sant leen yàlla lu baax ngeen doolul ñu ne waaw ñu ne mboolem lu ngeen amat ci ay bàkkaar soppi nañ leen ko ay tuyaaba kon ñëw fi bénéfice na kon nag sëñ Tuubaa nee na sama tey ju ne maanaam day gàccee sama démb mbaa xam ngeen ne yi Masalik jii ngeen gis ni bu fekkee sëñ Tuubaa milliard de points lañ ko war a marqué xam ngay benn point rek la bu mel nii waaye li ñëwagut mooy xel da ko du daj sëñ Moussa Kane lu xel dajut dee su ko raas kon sëñ Bamba yorul ab tariixa sëriñ Bamba aw yoon wu jëm ci yàlla la yore woo xam ne sëñ Bamba mooy asamaaw kenn du wax sa moroom xejal ma ma xool kon sëriñ bi dafa bëggal ñëpp jariñu ku bëgg ñëpp jariñu nag day bëgg day woo ñëpp lakin unaandi kulal bilaadi ilaa di bilaa jalaay en tout cas sëñ Tuubaa nee lu man a xew woo naa ñëpp ñu ñëw ci sama barab bii nga xam ne mooy kenn loo xam ne dootul daanu mukk kon képp ku fi ñëw ku ne yàlla nga wuy si sëñ nag nee na woote naa ñi ñëw wàcc nañu maa ci des wax na ngeen dégg bind na bàyyi fi jëf na ñu gis kon sëñ Tuubaa nee na may jëmm joo xam ne ñëpp baax rek laa bëgg fu waay baaxee sama xol sedd na kon sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne des koy réere waaye kenn du ko bañ des koy réere waaye kenn du ko bañ ndax koo xam ne njariñul kese la fu mu toll di jariñe te du lore kooku wax dëgg moom ku ko umpale rek moo ko dul wëri waaye sëñ Tuubaa mooy ki nga xam ne ku ci abonné foo toll da ngay am réseau ak tonalité te da ngay gën di xew te doo xewi mukk moo tax maa ngi wax ne euh, Bamba amul maas ku mer ba koy kaas danaa ko tappaas jeexaat ci Bamba fu ñu tuddee Bamba Samba ki dem ba def leen ci damba sànni ca sën ba Bamba ci xat-xat la dund ay at amul woon a jot laajal ma Samba ñu di avocat. te di délinquant taxaw ci kàddigoolu Bamba moo tax euh, sëñ Bamba man damaa bëgg ci ñi fi ñëw wallahi sama xol bi ni mu seede ci doomu aadama yi daje fii ci Masaalikul Jinaan man bu fekkente maanaam yàlla sama ndigal lay euh, lay lay lay déglu wala ma di ko conseiller man kenn ku ne ci ñi fi teew sama xol sedd na ñoom sedd goo xam ne wallahi ma sañan wallahi yàlla dootul topp kenn dara ëllëg ñi ñëw ak ñëwut ñëpp jàmm la leen sëñ Bamba bëgg leen man de leen sëñ Bamba bëgg rek laan bëgg waaye noo ngi delloo ñaanal nag sëñ Mouhamadul Mountakha Bassirou xam nga ne 1895 bi sëñ Bamba dem ci géej gi ak léegi quatre ans la boobu la sëñ Basiru gën jamono mbaa xam nga ne fii ñu tollu ren ji doomi sëriñ Basir mu sëñ mu Muntaxa Basir moo war ubbi juma ji ko sëñ Bamba léppam kaw lay jam waxtu wu ne yal yàlla defa nu dégg ak jàmm defa nu dégg ak topp nee leen jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf Serigne Bamba wasalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi nag yal na yàlla yàgg leen a wane barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf. Eh, soxna si maa ngi lay ziar bu baax. waaw ah, maa ngi lay tolli ziar yow tamit. Eh, ñu ngi la fekkee fi nga xamante ne nii moom mooy eh, Masalikul Jinaan tey nekk premier jour. gannaaw bi nga xamante ne démb si leen accueillir kii di Serigne Mountakha Serigne Touba euh, tey di premier jour bi tombeek euh, ñu jagle ko ki nga xamante ne ni moom mooy Serigne Saliou Mbacké ñu bëggoon xam naka nga dundee bés bi. ah bés bi moom neex na torop parce que Serigne Saliou ñun mooy suñu yaakaar tey ak dëgg yàlla dañuy sant yàlla di sant Serigne Touba moom mi nga xam ne moo ñu indil Touba fii si dakaar ñu ngi koy sant di ko gërëm tey moom Serigne Saliou journée képp ku fi ñëw rek. loo ñaan rek suñu borom da koy nangu parce que Serigne Saliou borom baax la mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg waaw. Euh, tey soo xoolee lii nii Masaalikul Jinaan tey dèjà euh, ñëwaguñu si li nga xamante ne moom mooy le 27 euh, jour ubbite gi boo xoolee lii ni mu mel partout fu nekk nit di fa jogee ban yëg-yëg tey ngay am. ah dëgg yàlla dañoo kontaan suñu xool yëpp sedd na suñu xol tooy na mu ngi mel ni tey ñu ngi Touba parce que Serigne Saliou mu ngi mel ni tey ñu ngi Touba suñu xol yëpp sedd na parce que tey boo xool day màggat la lay jox lépp sëñ Touba moo ko waral. lépp moo waral tey Mbacke Balla Aïssa moo waral lii lépp illaahi. naka nga dundee woon teeru mu Mountakha bi. ah dëgg yàlla dañoo kontaan sama goro ñëw na maam a Diouf dafa jooy ba sonn ak nen saaliw ma ànd ay Aïssata ak aji suñu xol daal sedd na dëgg yàlla boo amee feebar sax billaay feebar bi dafiy des ni ngeex kontaante bi ñu yëg suñu yaram. ndeysaan xam nga soo xoolee lii daf lay sa xel dafay dem si li nga xamante ne moom mooy màggalug Touba li ñuy wax rek nga xamante ne ñoom tey dafa mel ni dañu wuy si nga xamante ne nii mooy la nit ni euh, Serigne Saliou dafa soppoon ndaw ñi ndax tey boo xoolee Masalikul mun naa ni sax euh, ndaw ñi sax instant yi tey ñoo ëpp ñi nga ne ñoom ñooy mag ñi soxna si maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi delloo ziar bu wér. nga dundee nga xamante moom mooy bésu Serigne bi tey. ah bésu Serigne Saliou bi moom tuwaa fa kàlla macha allah neex na torop ñoo ngi ciy sant sëñ Touba bu wér sentir nañ suñu bopp bu baax di wane ni rek sëñ Touba mu amul moroom moom kese moom rek waaw kañ. maa ngi lay maa ngi lay fay. tur bi nan la. Soxna May lay. Eh, Soxna May naka nga dundee Masaalikul Jinaan. ah xanaa neex rek bilaay walaay lii moom neex na lii moom ku xolu itam seddoo rek ma xam ne nag bilaay lii moom suñu xol yi sedd na torop torop waay bilaay sant Serigne Touba rek Serigne Touba amul moroom. bi ñuy accueillir Serigne Mountakha naka nga ko dundee. sama xol dafa feesoon damaa doon sa waaj a jooy billaay